waa man lu ma dal qu'est-ce qui nekk sama bopp bi rekk maa ngi koy xalaat tout le temps tout le ah, <coughs> hmm. ah, man kay leen rekk ma yéem. mooy takku samsu bi. Eliana. saa yaa dafa nekk. lu ma ci xam. lan ah, la kii moom mett moom version douze bi sam na de. ay bon waaye ku defar ni. mett de lay defaral café. moom. te damaa sant defaral ko café. Eh, yow yow yow yow yow yow yow yow yow

mo la ko may yow nga dem ba ci bir ba ndox egg la ci bat nga joxe fa say kaddu wax sa waxi gor kon mama nan la wul wulbitiko dem ci sa papa ak ci yaay nan len tak gi am lu xew lay ci bi ta allah Maître. Ah oui, Yéna. Ça va? Comment vas-tu? Ah, merci, merci. C'est gentil, vraiment. mais tout va bien. Oui, ça va quand même. Ça va. Ça se passe très, très bien. Sérieusement. Oui. et toi? Ça va.